ñëwee si côté politique bi comme ni nga ko laajee vraiment euh, Malick Gakou comme li euh, sawaay wax Pape wax parce que xam na ne mënul gagner mais dañ koy féliciter si engagement bi mu am parce que comme ni ko Malick waxee politique dafa laaj engagement ak détermination parce que loolu mooy tax nga yegg fi nga bëgg a yegg parce que Sénégal moom ñëpp ko bokk ku si nekk am nga fi mbokk am nga fi xarit le fait que doomu aadama nga am nga bëgg-bëgg nga dem wuti ci euh, ñu ngi koy encouragé ci loolu parce que peut-être euh, mun nañu wax ne comme ni ko kii waxee ku ndóbin rey sa maam boo séenee lu ñuul da ngay daw peut-être njortu na ne parrainage bi euh, ñëpp dinañ jog wuti mu teel a commencé loolu moom politicien bu nekk bëgg a nekk candidat war nga roy ci moom nga dem ci le terrain nga wuti ji parce que quatorze régions du Sénégal yomb pour nga am parents yi ñu laaj mais tam boo teelee jug yàlla mun na la dimbalee nga am li nga xamante ni moom nga bëgg mais boo xaaree nag bëgg a def comme ñun parti mouvement présidentiel bi nga xamante ni ñun ñoo ngi fépp euh, njortu naa ne sunu parrainage pare na bu yàgg. comme mm. ni ñu ko doon defee saa su nekk. waaye parce que ñun ñi ngi ci base bi comme ni ma la waxee munoo di dem weekend chaque weekend nga daw trois cent vingt sept kilomètres alors que parrainage jot ngay toog di xaar ñeneen chaque bi ñu koy préparer xam ne dañoo war a dem élection donte la sunu candidat génnagul comme ni nga ko waxee mais njortu naa ne li ñuy mébét pour sunu candidat mën a dem ñun teg nañ ko ci table bi ba pare dañuy xaar rek jour bi jot ñu dem jébbal ko président de la république comme ni ñu ko doon defee saa su nekk.